salaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokku senegal yéen waa eh, Sénégal yëpp man ay Médouka Daayile eh, bu dëkk Daayile maa leen nuyu di leen sant di leen xamal ne tey altine tey jii nii altine tey mu ngi tombog nit ñi demoon luuma ñu demoon yendu ci luuma bi mu ngi nekk at na le 15 11 mois 2021 vraiment gis ngeen tey daal ni mu takkee tey dara desu fi dara desu fi te lii yëpp li ñu gën a waral mooy ñàkk ndox. jël nañu ndox mi léegi jël tey àll safara bi jël nañu en otage ay jigéen kese la fekk ñuy ut nañu ndox du kaalis du xar du béy du dund du dara du seen takkaay du seen yire tey ñu ngi nii taxaw amatuñ sax lu ñu sol ah ndax loolu jaadu na ndax loolu jaadu na ah ndax léegi yéen leen ndax lii jaadu na bu fekkee gouvernement Sénégal baax na ñun xamuñu bu fekkee gouvernement mu ngi Sénégal liggéey ñun waa Dayle xamuñu jooytu nañ ci ay rajo jooytu nañ fu ne kenn ku ne xam nga ko ñu ngi ciy xool te lii yëpp ñàkk ndox moo ñu ko teg gis ngeen mbortu yii de mbortu yi de yu ngi nii gis ngeen lii def nañ dox ñaxtu def lépp te bu neexee yàlla dañuy defaat doxu ñaxtu ndaxte lii dafa nekk lu warul gis ngeen jigéen ñi ñu ngi nii tey luñ sol sax amatuñ ñu ngi leen di remercier comme ko o haali ko sandarmori kam ari waɗi mbaɗal mum sandarmori kam wona sappo pompier wayda wayta ko ara waɗa enquête mum nelda sabu chef mawdo rokabi muno haba ara koto waddimi e élément ji ɗiɗo ɗo ɗum laya ɗo no noddimi tan noddu waji ɓe nden mbimi ndar mo ringal tawi ko pari kamen den non vraiment que ni way kadi kadi onom, non gandi ɗuɗɗo ala ko ɓuuri ɗum muus dans le danako mum waktu pol sangen dego fi cugolof sangen dego nat li defo metti defo metti gis safara bi jele nit ñi ay otage ndox amut fi dara amut tay ñaata yoon ñu ngi dig ndox fekkee loolu laa wax léegi man fekkee gouvernement Sénégal mu ngi liggéey ñun xamuñu fekkee ne gouvernement Sénégal baax na ñun xamuñu bu fekkee ne Sénégal am na émergence ñun xamuñu ndaxte lii depuis ñun ñu juddu fii léegi ñu ngi ci cinquante cinq ans sus ko perte de bi la ñuy jàlle hmm? fii saret rey na fi nit du benn du ñaar doomi kii doomi rek magu kii defaroo too saret jóge mu ngi nekk xale bu jigéen fii la dee naan dugg génn doow ñaa dowal oto yi pii paa assalamu aleykum bandiraɓe sehlaɓe ɗo ko dayle vraiment hum waɗi yurminide on yiyde gore kuɓɓiri haydara heddaki ɗo ko borti bahi ɗi gooni ɗo machine aji hay ko ñama haydara haydara foof suumi haydara bon te ɗum ɗo ko ɓuuri ɗum addude foof ko rafi ndiyam avant kede wuuro ngo jayigol jooko yimɓe yimɓe koro dañ ko ɗananiri jayigol ha jeygol ni wuro dum hono gandi hay goto anda ko dum woni te non fof non yimbe be dari hebe jeeba si wiyama gouvernement senegal ko moƴƴo dayilnaɓe ganda si wiyama gouvernement sénégal hama liggui dayilnaɓe ganda si wiya gouvernement senegal won kombo gollani senegal minen min ganda on ji du fof borti baaɗi on ji on ji du fof borti baaɗi on ji on ji hande kalis kalis moftonoɗo sumi a ah, joni baali sappo tati mbaati haydara heddaki rewɓe ɓe dari ayi ngala hayko ɓorni cuuɗaji mumen guertoɗe mumen ah, cuuɗaji ayi kaalisaji mumen on yii ah, joni ayi dentité ji hande haydara heddaki mbiɗen noddi laamu o yoɓe ƴeew gurdam dayle on jii ɗum kam oɗon gandi ɗum kam vraiment ɗum jaadaki ɗum jaadaki te ɗum jaadaki ɗum jaadaki élément gendarmerie ɓeni jaa élément gendarmerie boni yaha joni kam heɓe pilme vraiment ɓe mbaɗɗi ko ɗumen on jii sakuji maaro moɓɓitinoyɗi on jii e no ɗi mbayi on jii on jii en goori sumri ɗum kam oɗon jiiri guete moon joni on jii daka ɗum hene jaadi si tawi wiyama han gouvernement sénégal hama liggi minen min ganda si tawi wiyama gouvernement sénégal ko minen min ganda vraiment yanam mar min cawti min cawti vraiment min cawti min cawti min cawti on jii yew masara demanoɗo masara demanoɗo mofta a boni eyyi masara demanoɗo mofta a boni on jiinomo huɓɓirta ayi goho suudu ɗiɗi suudu tati suudu nayyi suudu joyi suudu jeego suudu jeeɗiɗi suudu jeetati suudu jeenayi suudu sappo suudu cuuɗi sappo hande joomumen fof ɓe ndaari en jii andi hande haydara ala ɗo joni noda koko ɗum kako ɗum taki ne hunde imma on calminama on juurama ko nidal dayle ñalli hande